samedi juróomi fan ci wéru mars 2022 bisup magal Cheikh Madiba Sylla ca Ndofane Mouride waye samedi ñaar fukki fan ak juróom ben ci wéru mars magal Cheikh Madiba Sylla te Daaru Rasaam aljuma ñenti fan ci wéru mars 2022 jabotuk Cheikh Madiba Sylla te ñoo fassiyene andando dem siyaare ji seen serigne seen soppe sëriñ Mahmadan Sylla khalifa Cheikh Madiba Sylla te Ndofane Mouride te ñoo fassiyene jaar xaw buntu kër buur siin Kumba fen ngir mo dalalon Cheikh Madiba Sylla ca sin ci ndigalul serigne Muntaxa Mbàkke khalif general des Mourides serigne Ahmadul mukhtar Mbàkke khalifa Cheikh Mustafa al Karim serigne Cheikh Mbàkke Madina ñi daru khudus serigne abdourahman Mbacké khalifa Gaynde Fatma Serigne Moustapha Mbacké Mohamed ci jitul Serigne Mahmadan Silla khalifa Cheikh Madiba Silla Serigne Mahmadan Silla ibnu Serigne Madiba Silla ci Daru Rasakh Serigne Makhtar Silla ibnu Cheikh Madiba Silla ci Touba Sam Serigne Makhtar Silla ibnu Serigne Omar Silla Serigne Mbacké Silla ibnu Serigne Sadekh Silla Serigne Abdou Latif Silla khalifa Serigne Makhtar Silla Ndiarem Serigne Mbacké Silla ibnu Cheikh Madiba Silla yore kaddu njabotuk Cheikh Madiba Silla soxna Astu Mbacké Silla bintu Cheikh Madiba ba ci soxna Mam Fati Silla bintu Cheikh Madiba ci Cheikh Madiba Silla ci njiitul Serigne Abdou Silla ibnu Serigne Basirou Silla Madiba soxna Dembu Njaay mom soxna Umul sila ak soxna Astu sila mom Serigne Cheikh sila Madiba seti Cheikh Madiba sila, Serigne Abdou sila, khalifa Serigne Basiru sila, ca Saadatu Serigne Basiru sila, khalifa Serigne Cheikh sila Madiba Touba dar Rahman Serigne Gannar sila, ibnu Serigne Mahamadan sila ci ndofan mam Serigne sila khalifa Serigne Bara sila ci ndofan sila Serigne sila sering Saadatu Serigne Mbacke sila khalifa Serigne Sidiya sila Serigne na sila ibnu Serigne Mahamadan sila daru rasakh Serigne Abdou Fatah sila, Serigne Makhtar sila, jabotou Serigne Fallou sila Serigne Bara Diop federation fédération iratu keur Cheikh Madiba sila, Serigne Bara Diop vice président Serigne Makhtar fay ba fédération daïra Cheikh Madiba mam Serigne sila ibnu Serigne Ndiaga sila, président daayiratu sëti Cheikh Madiba sila, wa daïra matériel bi ci njitul Serigne dan Ba ak Serigne Mandiaye Diop daïra bi lëkkale dongay laxasaay yi Serigne Makhtar fay Serigne Omar Diop ni Serigne dan sila khalifa ci Ndofane Serigne mustapha Diouf jëwriñu ni mbandiaté Serigne Papa Samb jëwriñu ni mbadakar njitul Serigne bak sila, ibnu Cheikh Madiba sila yore kaddu mboolem njabot gi Serigne Ngari Ndoy ni talibé yi aju ci keur Cheikh Madiba sila, jabootuk Cheikh Madiba sila talibé yu gor ak jigen di len yëgal bis ba ñu fas ziaré ji sëriñ mahmadan silla khalifa cheikh madi ba ci ndo fan mouride aljuma fan ci mars 2022 dañu fas yéenee dajo jaxaaw buntu kër buur siin kumba fen ngir mo sin. cheikh madi ba sin ñu jokk mbokk ga mottali kolëre ga bëgg nañu 12 h fekk fa 14 h 30 ñu daldi andando. def genn njooxe nak wuti ndofaan murit ziyaare sëriñ mahmadan silla xalifa seex madi ba silla jébbal ko seeni addiya yeesal seenu jaayante bu ñu noppee ñaanal ko sakku ci mom ñaan bu ñu ci suba sa tombé ak juroomi fan ci mars 2022 mooy bésub magal seex madi ba silla fan ndofaan jang alquran qasida istighfar salatu ala nabi fanaane ko ba asaman set ñu sant soñe ñaan magaluk daru rasax japp nañu ko samedi ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru mar Cheikh Madiba le Pastef fa mourid bu ko roy fawu mu am ngeureum ak ci reum dafa rëy moo doon maxtaar ma reema ibra ci ngor ak ma sumbul fatma maktar caafuur ak ñamu jur maxtaar ma reema Cheikh Bamba dana fa dem way xam ju lu la da jëf yow di sakku ngaram seen yaari wajur ya sekkon nañu le rengir yalla ak yonent bay sàmm diine ci ngor Cheikh Bamba atmam joge ci geej gi dem na ñaxal mare ma silak taram ba moko ko dalal kérok la fa fab Cheikh Madiba jébbal ko booba la raw ngir dem na gànnaar jolof am ndam yu ñëpp di naw Cheikh Madiba am na ngërëmal yàlla am ngërëmal yoneen ba Cheikh Bamba mooy saadix bu gëm te dëggal di Madiba am na ngërëmul gaynde Fatma bu wér ak sët ba sëñ Mbàkke Mohamed jooja waaye di mbër Cheikh Madiba si la moo dem siin ci waxtu lëndëm ñuy tëgg seeni junjung tey jaamu seeni xërëm la ñuy gëlëm-gëlëm jàmbaar la ñu namp ci ngor ñu bari jom lool sa jomboon jombe daawu ñu wor ma ba dem fa ngir not ñu dal di taxaw xare ba daaneel ko yàlla na yàlla dolli ko yiw dem ca Sëriñ Tuubaa di sàkku ndimbal moo seere woo nit Sëriñ Tuubaa te ngir bëgg jàmbaar ju dem siin jële leen ci lëndëm ba ñëpp tabbi ci lislaam faatu làqi ngërëm seex ma diba dikk siin seex Moustapha ko yabal buur siin dalal na ko jox koy tool ñu daa ko bayal jëbbal ko suuf jox ko aw fas jox ko jaasi mu yor jëbbal ko boppam gannaawam wax ko doom ya jur diggante seex ma diba buur siin du luñ mën a wax ci ay minute mbaam bu laan kenn du ko natt ci dex yàlla na leen yàlla dolli leer tofal ca ngërëm ku dem ca bis la qualité fait la